maa ngi lay nuyu. Bégué ñu ngi siyaar bu baax. naka affaire temps yi dafa mel ni yaa ngay jëm si mag comme sa neveu yi léegi yaa ñoom yéen a toll. waaw gis nga maa jëm mag noonu la loolu lañ doon ñaan. <laughs> nan nga gisee huitième édition Galsen Hip Hop Awards xam ne ni Sénégal tey defi yenn événement yi dafa metti tey ñu tenir ba dix huit ba huitième édition nan nga gisee initiative. positif lu baax la lu positif la je pense que c'est euh, c'est quelque chose de très positive e euh, ñu ngi béggee di shout out waaye di si loolu. di ko ñaanal di ko encouragé si loolu mu nekk nii yàlla gën ko see indil ay yeneen yeneen yeneen yeneen perspective yu gën a mag quoi incha allah. li nga xam ne moom mooy album Abiyo bi ba tey gars ñu ngi siy wax ba tey actualité la album bi yan retour nga si am. waaw que des retours positifs parce que album la bu ñu yàgg a ay ak toute l' équipe derrière donc mu nekk album boo xamante ni euh, sénégalais yi accueillir nañ ko ak ak ak à bras ouverts donc gis naa ne bëgg nañ ko bu baax donc ana sa fille adoptive bi gisoon nañ aussi bi nga xam ne bi ngay def tey euh, bi nga doon def sa show bokkoon na ci moom partie bi mu nekk bokkoon na ci li gënoon euh, attirer attention gars yi. waaw waaw Manda donc mu nekk affaire boo xamante ni euh, ku sama comme ci la tu l'as bien dit c'est ma fille adoptive donc mu ngi village Bala maa ngi siyaar village bi yëpp di leen wax ne récemment ni war naa fa dem dans pas longtemps incha allah pour le. pour, euh, pour, pour le tournage de, du son mandat et tout. Donc, voilà. voilà. Dernière question, actualité. Il y a un groupe Facebook qui a été tué, Homme Choc. Homme Choc, wax sommes You, je ne suis pas au courant de ce qui se passe là-bas. Je le contenu, donc je ne peux pas en parler. Mais je, pour dire vrai, je ne maîtrise pas trop ce qui se passe là-bas. Voilà. Je suis...